mbokk assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh yéen ñi faral di sétane sen site bu mag bi Allo Dakar TV ñi ngi dellu si waat ci sen émission bu mag bi ñukoy amal deux fois dans la semaine muy émission bo xamni le grand débat la ñi ci waxtaan actualité ci réew mi lépp muy xew-xew bo xamni amna ci réew mi ñi ci dalal ay kangam yo xamni sen xam-xam màcc na ci lolu mo xam muy homme politique mo xam muy chef religieux opérateur économique ba ci ouvrier bi sax ñëpp daañu leen tàllal suñu micro bi micro bi nag loolu rek moo ko tax a jóg pour waxtaan li xeew xew yi nga xam ne am na ci réew mi deux fois lay am dans la semaine kan moo leen koy defal assan Gawlo Mboup Assane Gawlo Mboup à la Dakar TV Assane Gawlo pour les actualités du pays kon rendez-vous bi bientôt ak yow mi may seetaan